waxtaan nañu waa Sénégal te boo xayma ku nekk ci ñoom bu indee lu mat cinquante mille parrains jàpp ngeen gis ngeen le nombre de Sénégalais qui ont porté le choix de parrainage ci ñi nga xam ne ñoom laa tudd sànq. kuréel bi aussi mu ngi gërëm bu baax a baax kilifa diine yi nga xam ne ñoo ñu dalal ak kilifa aada yi ci xeex bi nga xam ne ñu koy xeex te dara waralu ko. lu dul sunu àq sunu yelef waaye également àq yelef waa Sénégal yëpp ak sunu sécurité réew collectif aussi mu ngi euh, gërëm bu baax audience ba nga xam ne defoon nañ ko fan yi passé ak ki nga xam ne moom la Sénégal jiital te moom mooy garant du bon fonctionnement des institutions te ak la nga xam ne moo fa juddee également ci ay dogal ak ci ay orientation kuréel baa ngi dalal xelu askanu Sénégal waaye également sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk euh, ci biir Afrique waaye également ci bitim réew sunu ay partenaires que xeex bi nga xam ne mu ngi koy xeex xeexu àq ak yelleef la xeexu renforcer sunu démocratie la xeexu renforcer institution nga xam ne ñoo ngànk Sénégal la aussi kuréel baa ngi wax ni ñi naan sunu ay données maanaam sunu ay fichiers. kenn dugg ci dugali ci loo xam ne du noonu ñu leen di wax ne am nañu les preuves du contraire di wax ne également que lii nga xam ne système de parrainage bi indi na ko ci ay tolof-tolof yaakaar na ay observateur ngeen li xew ci réew mi fan yi yëpp yéen a koy seetlu collectif baa ngi proposé waaye di woowaa Sénégal pour ñëpp ànd nekk benn say pour que lii nga xam ne mooy parrainage citoyen ñu dakkal ko suñu réew ndax li mu jur du jàmm waaye également yaatal kuréel bi pour que tous les sénégalais ya nga xam ne ñoo épris de paix de justice mais également d'un processus solide ñu mën ci bokk pour njëriñu Sénégal njëriñ suñu réew pour avoir une élection système électoral boo xam ne bu dëgër la bu amul benn sikki sàkka boo xam ne ku ci fal ëllëg kenn du la werante kenn du la contesté collectif baa ngi fàttali également ne candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk nañ continuer liggéey bi nañ continuer xeex bi pour que les 900000 sénégalais yaa nga xam ne jàpp nañu nekk ñu doon le fichier électoral ñu mën kaa leeral ba ñooñu bañ a am benn benn werante benn benn sikki sàkka le jour du vote pour renforcer notre système démocratique. collectif baa ngi lance également un appel à tous ses membres maanaam di leen woo. pour que lii nga xam ne mooy xeex bi du yem rek ci conférence de presse à partir de demain dina am également ay dajale yu ñuy def ay rassemblement pour wax waa Sénégal parce que na nañu toog di croiser le sunu ay bras pour que un groupe de personnes décide de manière arbitraire de supprimer de Sénégalais sur la compétition de l'élection présidentielle alors que la constitution du Sénégal moo ko maye moo ko autorisé en définitive fi may daaneel sama kàddu mooy te li nga xam ne moom la mbokk yi wax mooy ne ñii nekk ci kuréel bi dañu ne lii ñuy sàkku ñaanuñu kenn dara dañuy sàkk suñu ay droit dañuy sàkk suñu ay àq dañuy sàkk suñu ay yelef te nee nañu nu lance un défi que li ñu wax fii yëpp ci ay dysfonctionnement kuréel bi pare na pour jàkkaarloo ak waa ministère de l'intérieur ba conseil constitutionnel pour que électeurs yi nga xam ne dañu leen ne nekkuñu dans le fichier électoral ñu mën ko démontrer qu'ils sont effectivement dans le fichier électoral et que leur parrainage doit être pris en compte ndax dañu jàpp ne 900 000 sénégalais fu ñu ko génnee ce processus électoral là ne peut pas être crédible dañu jàpp ne également pour que suñu processus électoral nekk bu ñu mën a naw pour que lépp lépp lu muy jër ëllëg du am benn werante laaj na lii ñu éclaircir ko dans des conditions normales pour que sunu réew nekkaat modèle démocratique ba nga xam ne moom noo sa nekk di daane suñu cadre rek ne la république restera debout maanaam ku jàpp ne mën nga sofental Sénégal ku jàpp ne par des décisions arbitraires injustes mën nga soo sooxal suñu démocratie yaa ngi nax sa bopp parce que le peuple sénégalais nañu ànd ak ñoom pour que le processus électoral sénégalais soit un processus électoral fiable crédible démocratique le Sénégal moo sa nekk mu bañ kaa bañ fa jóge maa ngi leen di gërëm leen sant seen ay